Amen. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mii fi nekkal Serigne Modou mustafa moo ma jox ndigal ma ñëw wax ak yéen waaye mu wax ni li jiitu ci ay waxam mooy mi ngi sant yàlla di sant bu baax Seexul Xaadim Xaadimu Rasuul waaye di santit kii mu fi bàyyi tey mu nekk ci kanamu taalibe yi muy sëriñ Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh mouhamadul basir nee na ndigalam rek lay déglu ak bëggam rek akuk jubloom moom lay déglu ngir jëfe ko moo tax bés bii ren ni jamono ji mel bu ko ci joxutoon ndigal du ko def ndigalam la ci jëfe waaye ndigal li li ci jiitu mooy nun taalibe yépp nu bokk jëfe ndigal ndigal li mooy lan lii xew ci jamono nu fuglanteeg moom ci ndigalal sëriñ bi lépp loo xam ni digal nañ nu ko ci wàllu docteur nee na nañ ko jëfe nan takk masque yi nanuy raxasu nanuy laal ci yëf yi nga xam ne boo ko laalee daal du la ca fekk boole koog di bañ a jaxasoo jaxasoo gu bari ak di saafonte nee na loolu ndigalal sëriñ bi la moo tax mu deen ko digal waaye gannaaw ndigalam loolu nag mu ngi seenu ci yërmande sëriñ Tuubaa ji jàmm rek ay xew sëriñ Moustapha Mouhamed mi nga xam ni wajuróom bu baax na sëriñ Mbacke moo doon def lii mu jël tey di ko def ba ñibbi àjjana mu jël ko waaye fi mu ko indi ak fi mu ko teg bu sëñ bi dellu si woon dana ko sant dana ko gërëm gën koo rafetal gën koo baaxal gën koo bari kon sëñ Ahma nee na yéen dong yi nga xam ni yéen ne ci gannaawam di ko liggéeyal mi ngi ñaan ngeen am ngërëmal Serigne tubaa mu ngi ñaan kenn ku ne yaa xam sax bëgg yàlla defal la ko mi ngi ñaan liggéey bii sëñ Moussa Faye def yàlla na ko yàgg a def lool te lépp lu mu ci def yàlla nangul ko ko nee na mi ngi sant sëriñ njabootu Serigne Modou Moustapha gépp bàyyiwul kenn góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina nag doomam yi nga xam ni tey ah ñoo ko fi nekkal muy jigéen ñi ak góor ñi sëñ Axma nee na mi ngi sant bu baax bu baax mboolem koo xam ne yaakaar nga sëñ Modou Moustapha seen taxawaay ci gannaawam ak seeni jëf mat na sëkk rafet na lool kon loolu la waxoon naa leen ko jottali waaye yéen ñi nag war ngeen a sant yàlla ndax fa ngeen jóge ku leen gis dana xam ne daraa nga ngeen jóge ku jàkkaarloo yéen ñii bu amee xam-xam dara dana xam ne fa ngeen jóge daraa nga fa te la fa ne mën naa jëriñ addina mën naa jëriñ àlaxira te yéen ñëpp da ngeen ci jëriñ ci barke sëñ Modou Moustapha moo tax bëgguñoo dugg ci lu bare bari ndax bañ yëngu gi ak coono yi di ci am moo tax rek nu bëgg koo gàttal ba suba sëñ bi dana génn fi toog wax ak yéen sant leen gërëm leen ñaanal leen a geen jëf